wóolu ñu wóolu leen da ngeen ñu sopp ñu sopp leen da ngeen ñu bëgg ñu bëgg leen ba pare nekk ay nawle Cheikh Hadj Malick amul ay taalib ay mbokk la kenn ci yéen jotul leetaru Serigne Mansour mun a jox la ma amul benn boo xam ne jot na leetaru Maodo si mun a jox leen ma nag amul benn daayira boo xam ne jot na daayira xalif général ba la ci ba la ci wàllu Sidi Mouhamadou Mansour wala kenn ci ay mbokk au contraire seen charge dafa diis ba nga xam ne yàlla rek ko xam. waaye nag lu leen nit defal ñu sant la dafa am benn góor ma dem Saalum 1981 mu gis ma ne dafa bëgg ma ñëw këram sopp ma rek di ma xool di ma xool nga la dëkk ma dem ne ko incha allah góor gi dinaa fa ñëw suba ma dem fa ca suba sa ji maa ngi fa yegg tàkku sànni suuf mu ne dafa bëgg ñuy fanaan fa ñu ne baax na ñu fanaan fa ba ca suba sa ñu war a xëy nag dem fu dëkk bu ñuy wax gent pate et ndeysaan mu ñëw seet ma bëgg lool kontaan lool làmb xaalis de deux cent cinquante et quelques mille jox ma ko ma ne ko Pape Ibrahima li taxul ma ñëw ma ne ko wallahi taxul ma ñëw mu ne bu ma gàccee si fay rus xam nga saalu saalu soo ko defee fay rus ma ne ko doo rus mu ah dencal sa poche waay ah ñu dem ndeysaan mu bokk ci yoonu convoi bu ñu dem gent paat ba ñu demee mu xool Taala Jaay moo ma doon dawal mu ne ko yaay sëfaru sëriñ mu ne ko kaay ñu waxtaan sëriñ bi da wëli la man de di ma li ma ko doon def nelaw ma guddi bi ñëpp ngi naan dama doon kuñ kuñ li ma sama saa jaba dénk li ma kii dénk li mu ne ko xaalis bi ma koy jox dara laa ci moom lépp bor la man nag maa ngi soog a ñeme sëriñ bi man nag maa ngi koy soog a ñeme kii daal ku baax la rek ah waaw sama papa daan nañu wax ne su ngeen dee def lu ñu leen jox ngeen lekk ko daa ngeen lekk safara ba tàyyi léegi li may tëje sama wax moo di rek euh, ñu jox yàlla suñu bopp système yëpp fayit na ah euh, lu ñu koy wax al-chirakiya socialisme scientifique wala socialisme dialectique sociale bi ci ci sens yëpp. niveau matérialisme ci wàllu société ci wàllu finance ci wàllu économie ci wàllu industrie lépp lépp daanu ku ne woon ci temps Nikita Khrouchtchev dans les années 60 ba début 70 ba Brejnev bi ñëw ku ne woon tey tey pays yooyu yëpp dana tas kenn bu ko gëm ndax xam Jacques Attali bind na benn livre mat na 3 ans nee na fii ak 30 ans États-Unis foofu la jëm. États-Unis dana dem ba tas tasar état yëpp benn bu ci nekk di laaj seen indépendance su ko defee kon diine moo fi dul jóge al islaamu bi nadariyatihi shumuliyati yuwaakibu alxayaa wa yaxrusu alxayaa wa yunammi alxayaa wa yuthri alxayaa ithraan yansajimu maa tabiati al insaan ka insaan su ko defee loolu lañu amoon ci lu ñuy wax di sant bu baax a baax Sëriñ Mouhamadou Mansour di ko gërëm di la jottali suñu yow pap sa xarit sa soppi di bokk ñun ñépp ci jotaay bi di ziyaare Cheikh Mouhamadou Mansour kenn la ki woyof kenn la ci lewat kenn la ci dënniiru kenn la ci muñ def naa ci moom xasida bu rafet mat na ñaar fukki at ak ñeent euh, maa ngi cay wax naan hani an li iidi l ilmi hani an li iidi l ilmi id yatajaddadu wa bushra lana fal yowma iidun muxalladu fa fa lim laa euh, fa euh, xamoon daal dem naa ba naa wa ahmaduna al mansuuru ramzun wa maqsadun maa ngi wax nag tara naasa afwajan ilayhi tazahamu yasuuquhumu wuddun wa lil kulli mawrid taraahum daa leen gis ñoom daayira yi ak kenn kenn yi afwajan ñuy kuléeri kuréel mboolooy mbooloo ilayhi jëm ci sëriñ Mansour dong nag suñ duggee Tiwaan benn buntu kër la ñu joxal jëm ñu ngay rajlaj loo waaye nag yasuuquhum di leen rëgët wuddun cofeel dara desul waaye wa kulli ñeel na képp kenn ci ñooñu donte li juddi nit lañu kenn ku nekk ci mbaaxu yàlla Sidi Mouhamadul Mansour am na mbalka moom lay màndale moo xam ne sa morom du ko yëg du ko xam maa tey magu tey loo ci mën ku la ne maa tey loo ci mën loolu ku la ne maa tey rek yëg yëg war na ne amul amul dara koo xam ne sa wax yëpp mooy maa tey yëguloo sa inanité waaw yëguloo yëguloo sa anania yëguloo sa bopp amuloo personnalité ma ne li ma wax nag su ma waxoon genn wàll ga suuf si nga xam ne nit ñi dañuy sujjóot ci kawam suuf si mooy ñëw di sujjóot ci tenku Serigne Mouhamadul Mansour amma Seydi Mouhamadul Moustapha Seydi Jamil fa xaddis wa huwa albaxru alladi la saaxiba la Cheikh Mouhamadul Mansour mu xam Seydi Jamil dafa ñëw ci époque boo xam ne époque bu doy waar la góor ñi ñi ñu jur ci ay góor moom rek la Cheikh Alhaj Malick gis góor ñi laa wax ñi góor ñi jur di Cheikh Alhaj Mouhamadul Bachir mi moo féete Seydi Jamil mag Cheikh Alhaj Mouhamadul Bachir son papa Alhaj Habib benn at la ko mag wala ñaar làq na téeméeri atam dafa moom dafa mel na ñeewantik yàlla ak leeru tariqa bi ak leeru ñaari maam almalikaani maam Malick Sall ak maam Malick Sy maa nangoo ci sama baay Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu ne maam Malick Sall bii wéy jur suñu yaay Umu Sall su fekk su daan su daan wadifa ba toll ci jawharatul kamal dafay gis yonent bi jahran sam papa ko wax nee na dafay ree da ngay gis muuñ nee na góor gu rafetoon la gu xees te te cër ya cër ya cër liis te nooy taar di maamam mu wëlbatiku fi Cheikh Hadj Malick di maamam ñoom ñëpp di ay nitu yàlla di ay boroomi cër Sidi Ahmad si di taawu Sëriñ Alhaj Malick si ak garaad yaag cër ya demam correspondre ak juddu Cheikh Hadj Sir Mouhamadul Moustapha Serigne Moustapha Sy eh, Serigne Babacar di ko xoole Sidi Ahmed mi dem Cheikh Hadj Malick di ko xoole Sidi Ahmed mi dem mu nekk parental ba mu tolloo ci juróomi at wala juróom benn bés ci bés yi maamam bëgg jëflanteeg moom moom Sir Mouhamadul Moustapha ne góor gi dafa mel na tey Mouhamadul Moustapha su suñ ko gisoon di dana baax ba Sidi Jamil ñëwee ak yére yu rafet yi ñu ko solal ak téere ràng yi tabaarakallaahu feet la woon keroog ci kër bi maamam takkoog moom rek di raay bopp bi di ñaan raay bopp bi rek di ñaan ñaan lu yàgg itam ubbi gémmiñam tëf ci roof ko sirru boo xam ne wéetoo na ko ba bi mu fiy jóge moom Serigne mu Moustapha di def ak ñépp dama daan wax ci Serigne Moustapha ne saa yoo ñëwee ci saalam bi la toog a moom dana wax ak yow ci tariqa bi loo xam ne soo fa génnee daa somb téere bu ne jawaahir bughya lu nekk ki fakar ki fakatu tullaab ifham daa songu téere yëpp euh, euh, lu muy tuddal al ifadatul ahmadi daa ko xool waaye doo gis ne Serigne Moustapha pour nga déggati ko dangay dangay da ngay da tuuti tuuti rek tuuti rek da ngay ñëw rek ba ci moom mu soog ko dégg soxna umu suñu mag suñu sang yàlla war na ma si Mouhamadou Moustapha bés mat na léegi neuf ans wala ñu ne kaay wuyu sëriñ bi yéen a may déglu may dem ci jaww ji di dem di dem di dem di dem ba yegg ci benn xadra waaye gis naa fa château boo xam ne lépp cristal la ma ne waaw fii nan lay amul bunt moo wër wër amul bunt waaye ruux leer la te ci te ci te gént laa nekk te sama ruux a dem ruux la la taafa la la taafa nuraaniya li ñuy tudde matière du dox digganteem ak mu pénétrer pour dem ma ñëw fekk si Jamil mi ngi toog ci fauteuil bu mag ak yére yu mbubb mu weex bu rafet ak bonnet carré bonnet bonnet fez bu ànd ak mu ñëw toog ci tànk yi mu ne ma xaj maa ñëw nga ma ne waaw mu ne maa la woolu woon ma ne ko aussi mu ne ma fii ma fii nga ñëw nag du ku mu neex nga ñëw fi may soxla nit rek mu fekk ma fi dama bëgg nga xamal mbokk yi xamal njaboot gi na leen man Mouhamadul Moustapha ba ma teqalikook ñoom ci àdduna ba léegi sama dara taxaw sama lépp ngi dox sama lépp a ngi dox ne ma kon boog ma ñaanal la mu ñaanal ma ma jóg am na jigéen yu rafet yoo xam ne weer dox na diggante ma fi sëriñ bi toog ñu ngi sol ay malfa yu weex yu raf ñu rafet ki ma ci xam daal mooy soxna daba si bi toppoon ci soxna xadi soxna daba bi Malick Sall doon denc bi ma wàccee bi ma jógee ci 7 heures mooy 20 ma naan café ma ne safeetu sama soxna maa ngi daw dem Fass ziyaare su ma ñëwee nag nettali la ma ñëw ba ci buntu kër gi teel dajeeg ndey mare ma ne di génn mu ngi sol borodi bu weex tal bu rafet ma ne lay ñaanal mu ne pap ma ne ko ñaanal ma ne ko dimbali ma ndey mare ma tom ma wax ah mu ne pap baax na laaj na ñaan ma ne ko dama gis surgel yàlla wan na ma tey lenn ñu ci maqaamam ak cëram ma nga ca ba dox waaye ba léegi waxam ma ngay dox la seen maam Haaji Touré ñaanal Cheikh El Hadji Malick mm-hmm. wa xawiyan ruuxahu ala ifadati anwaarin ala sahbi yallaahu yallaahu mimma yufidu alayhi min maarifihi wa min mawaahibi yallaahu yallaahu ba léegi sëñ Mouhamadul Moustapha ma ngay dem di dem di dem may yaa ngay dolliku cër yaa ngay dolliku ndax bëtam yépp yàlla la ci xool façon bu tarbiyaam nag bil himmati wal xaal la doon yare wallahi wallahi après wallahi ci laa ko jiite wallahi wallahi si wallahi wallahi wax nga waaw keroog bi ma génnee dama ne naa ziyaare soxna Ayda waaye ma dem fekk sama doom yëpp tabaarakallah di ko soxna si ca mbaax ga xamagul sax wax gu ma leen neen mi de na leen seen papa Maodo doom yi muy cheikh muy ahmada ñëpp tabaarakallah e eh, yàlla nañu ko yàlla fayal yiw yàlla ko yàlla fayal yiw yàlla na yàlla dolli ñu taysiir ak tawfiq ak tabrik yàlla yàggal fi xalifa bi si Mouhamadul Mansour ak i rakkam ñu ngi koy bége ñu ngi koy ñaanal euh, am na rek baytu yu ma def léegi bi ma toogee euh, jëme ku ci sama doom ma ne kun lil jamili kun lil jamili waaye mu bàyyi an mansuura talqal maratiba wal ula masruura huwa ramzu usratina ulan wa thaqafatana fa maqaamuhu min baynihim mashhuura euh, bushra li hada alxafli fi hada liqa nilna bihi sharafa alhuda wa nuura ma ne kun nekkal lil jamili nekkal taalibi sidi jamil bul xàcc bul bàyyi waaye neel gees ni Mansour jaayante naa yow kun lil jamili waaye mu bàyyi an Mansoura soo ko defee talqa daa dajeeg almaratiba martaba yu kawe wala wala daa dajeeg cër yu kawe ya daa ànd ak mbég footoon moom ne moom Mouhamadul Mansour mooy taaw ci sët yi li Sidi Jamil nekkoon taaw ci sëtu Cheikh Hadj moom mooy taaw ci sëtu maamam kon boog huwa huwa incha allah yal na yàlla def ca moom ci boppam. mooy symbole bi téye flambeau bi usra bi ci wàllu noblesse d'esprit ci wàllu culture générale nee naa cër bi ko yàlla sédd ci biiri cousin ci biiri frère am yàllaa ko ko ràng kon boog nee leen ko jàkk xool bañ mooy junjam ak joxoñam topp sa kilifa bàkkaar nekku ca xamuloo ne topp sa kilifa déggal ko bàkkaar nekku ca te nag ñaan googu la yàlla def Sidi Mouhamadou Moustapha ñaan ko ci njaboot bi ñaan googu la yàlla def Cheikh Mouhamadou Mansour al Khalifa al am li tariqati di ko def fu mu toll fal na jël Mansour taf ci boppam dem nañu ba ñu bari dañuy defee ni Mansour mi ñu ngi ko tudde xalifa bi sëriñ Mansour waaye Mansour ñu ngi ko tudde maamam alxaaji Mansour moo xalifa bi ñëw bokk loolu muy ku baax di ku yiw ma ne mbégte ñeel nañu ci daje bile bushra li hada alxafli fi hada alliqa waaw nil naa bihi sharaf alhuda wa tedd nga tedd nga ak teraanga njub gu ànd ak ràññee ak xàmmee kenn ku nekk sooy dellu sa kër mooy li ngay ndogoo xamuloo ñun ndogu nañu te ndogu jotul ndogu weesuwul li jotaay bu toll nii mbooloo mu bari nii te ñépp yaru kenn yëngatu kenn neewul diw noppi loolu la Sidi Moustapha yare ay njabootam daan nga ñëw fii fekk ko mu toog ci fauteuilam bi kenn du sañ a benn pas du la gis sax waaye soo ko gisee rek yëg taxshaaka mahabatuhu wa waqaaruhu wa jalalu dafay mel ne dañu gorsali ay tànk nga toog moom bokkoon na ci ñi nga xam ne toogal di ko xool rek mën Mansour sama rakk Abdoul Aziz ba léegi dafa naan ma Hajj Mali fàtte nga bi ñu mujjee seeti si Mouhamadou Moustapha mu ngi sol bonakaari Serigne Babacar keroog jàngal nañu Fatihatul ab jàngin boo xam ñun mësuñu ko dégg billahi alladi laa ilaha illa jàngal nañu Fatihatul kitab boo xam ne mësuñu ko dégg ak yem ñu yóbbale nag <coughs> tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon kàddu yi ñu ngi nuyu suñu doomu bàyyi yegg si léegi di Cheikh El Hadj Malick Sy eh, ak Majib Sène Abdou Majib Sène ak mbokk yi ñu àndal di leen déggee représentant premier ministre ak représentant premier ministre Youssoufa Diallo ak représentant Dame Gueye ak représentant waa université ak Karim Wade tabaarakallaahu ñu ngi leen di dalal jàmm ak mairie bi eh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di dalal jàmm mairie mairie yëpp Babacar Ndaw mairie yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu leen di dalal jàmm tabaarakallaahu daje bi daje jàmm la daje bi daje barki la daje bi daje leer la daje sutura la ñuy ñaan suñu mag Sidi Abdoul Aziz bi nga xam ne jëmmam la ñu teewal bokk ko ñun ñëpp làmmiñam la ñu jéem a waxe bokk ko ñun ñëpp yàlla gën koo yàggal ci kanamu njaboot mu nekk ci diggante ñaari magam yi Seydi Mouhamadul Mansour ak Cheikh Seydi Ahmad Tijani ñun ñi ay rakkam topp ci ginnaaw njaboot gi yépp wuufu ci moom ñu bokk wuufu ci xalifa bi kilifa la goo xam ne tabaarakallaahu dafa niroog turandoom jikko Cheikh El Hadj Aziz mi ñu ko tudde mm-hmm. niru na ko ci ñeme coono ñeme na ko ci ñeme dëgg ñeme na ko ci ñeme njaboot ñeme na ko ci tab ñeme na ko ci fit ndax Cheikh El Hadj Aziz dañu wax ni ñett yi daf ko judduwaale moom Cheikh El Hadj turandoom tabe ragal yàlla ak maandu yooyu def ko judduwaale te itam ku bàyyi woon xel turandoom la daan ko ñaanal kon boog ñun itam mënuñu def lu dul dolli ko ñaan ñaanal si Mouhamadul Mansour al Khalifa a'azzahu Allah wa ataala umrahu baynana sinina adada di ñaanal suñu soppe suñu xol Cheikh Sayid Ahmad Tijani al Maktoum mm-hmm. mu ñuy wax naan góor gi ci ruq ba man yàlla ma ko bëgguloo mm-hmm. yàlla moo ma ko bëgguloo dama nekk xale bu tuuti ñu jox ma ko maa ngi photo boo xam ne mi ma uuf ma war a ànd ak moom tiwaawam boobu góor gi sëriñ Babacar mu nga riceer Sayid Cheikh dal ci kër ku ñuy wax Maxañ Yaay ak Serigne Mouhamadul Mansour Maxa Ndiaye jàpp leen tur bi Serigne Cheikh ñu jël ma ak sama yére ma nekk ca moom Maxa Ndiaye ku xees la defe naa waa Ndar la photo yi ma def ak moom benn bi ma taxaw benn bi mu uuf ma ku ñuy wax mix Guèye keroog Serigne Cheikh moom mu yóbbu mi ngi ànd ak Habib bu son papa Serigne Babacar mbokk gi nañ koy rafetal kenn gënul sama morom mbokk gi nañ koy rafetal. xam nga ki ñëw xool ba baaraamu Serigne Mansour yu jekk yee kaar di xool ba xool daal nga ne daal man daal Serigne baaraam bi moo ma ne ko tépp dagg rey nga ko hmm. na la baaraam ba neex rek waaye bu ko dagg bàyyi ko kuuñ alaaji Malick laa bëgg alaaji Malick laa bëgg waaye ku la neex ci ay sëtam nga ne kii ko yokkale du kenn yooyu caaxaan la Serigne Cheikh nee na bokk na ci làmmiñu Sénégal séddale ay cër yu nekkul ci sa loxo wormaal ñëpp bëgg ñëpp teral ñëpp kenn ku nekk nag kay sa sëriñ yaa ko tàmm te sëriñ Cheikh nee na sama sëriñ bu bon ba kenn waxagul ndax yaa taamu sama sëriñ bu baax ba rekk cay topp waaye sama sëriñ bu bon kenn du ko wax ndax yaa taamu kon boo ki nga xam ne taamu na ne diw mooy sama sëriñ ahlan wasaan marhaban waaye ma lan ñëpp ki nga xam ne taamu na ne parti politique bi mooy sama parti ahlan wasahlan waaye sa citoyenneté na ko wane ci société bi ci jagal ci yëwanal li ma ko doon waxee sànq rek te leen Sénégal dañu bëgg fu ñu tool di dégg safaan moo tax dawal jënd journal tel dawal jëndi quotidien bële dawal jënd leen la fa wax di wax nañ ko fa pàqu maamam yooyu yëpp ay caaxaan rek mbokk yi yal na yàlla nangu ñu suñu koor yal yàlla doole ñu sutura yal yàlla doole ñu yiw yal na yàlla doole ñu barke yal na yàlla doole ñu tawfiq maa ngi nuyu itam soxna umu bu ndaw umu kulsum ma nga mel toog ci wetu xaw umu xay umu kulsum maa ngi nuyu ndey Marème maa ngi nuyu njabootu bàyyi ma te maa ngi nuyu asi suñu doom ju baax la lu xew lu xew ci xadara maamam asi teew na ci teewin wu rafet nag ànd ak ànd ak lam ca war a def lépp mu def ko léegi laay wax léegi laay wax Mouhamadul Habib bi ñuy tudd doomu Sidi Abdul Hamid ma ne ko gis gi ma gis démb ci journal yi teew gi nga teew ci université du Ramadan fekk sa mbokk mustafa ànd ak Cheikh Omar ma ne ko lu rafet la dara dàqu sëriñ Abdoul Aziz Ndaw dina wax ne ñun bariwuñu nañ dem nañ jàppante te gis nga ñun ñi ku ci nekk rek soo bàyyee sa moroom itam sa moroom du wedd du wedd waaye ànd ci la ci la sag nekk ànd ci la sag nekk kon boog na ñëpp ànd sëñ du Moussa loolu la daan def su gàmmu ak ñëwee mu ne Louga ñëwee mu ne bu leen dem Louga te du mu leen som papam su nekkee Tiwaan dem leen fa su nekkee Jaksaaw dem leen fa gàmmu Tiwaan suñu mu su ngeen wàccee Tiwaan jubal leen ci som papa tabaarakallaahu loolu nag ndoona la loo xam ne ñun ñëpp ko bokk jàppante bëggante di par parloo di ma neex di ma neex day yàq famille te kenn ku nekk nag tabaarakallaahu yaa taamu ni kër gee la neex kon boog soo ñëwee ci kër gi ñu ne la marhaban dimbaleel nit ñi ci bennoo gi rafetoo bu kenn ñaaw njort ci sa morom kenn mënalul sa morom dara Cheikh El Hadj su dekki woon tey ngeen xam su fekkoon ne nit dana jékki-jékki dekk ñun ñi ñëpp lay uuf ndax ay sëtam la Serigne Mansour nag tànkam rafet na doxalinam rafet na ñu ngi koy bëgge di ko ñaanal yàlla di di di di di ko sopp euh, ñaari yoon bokk nañ ko mu béggale ma ñëw rees sama kër moom Sémou Pathé Gueye sama xarit la woon xaritam la woon masul teqale comme promotionnaire am la ak Souleymane Bachir Diagne reer ba 9h lay commencé rahmatu mu yàlla na ko yàlla dool dolli leer ba 3h du matin question yu nekk débattre nañ ko tabarakallah téere bu neex bu mu gis mu génn mu ne naa ko jëndal son papa euh, tabarakallah ba tax na si euh, loolu daal mooy kàddu yi ku ne woon sax dinañu man wax lii Euh, dana ñuy danañu jaaxal ndax tabaaraka dañu xaw fragile suñu wàllu santé waaye ñu ngi sàkku ñaan yéem ñëw dem am na mbokk yu jóge kuyaane kànj boobu ba léegi ñu nga toog di ma xaar te dañu war a dellu ca Saalum ci wetu ñii bi loolu moo doon kàddu yi yàlla bu mu nekk suñu mujj daje suñ ko defee nag ngeen déglu nag message bi message yu xalifa bi jibagul ñu ngi dem waaye maa ngi dem xalifa bi moom joxeegul message am waaw ndax itam dana joxe ay message ñu déglu ko fukki loxo man bu ko enregistré xam naa ni Ahmada laa koy ñaan dama sama kii fekk ci sama kër incha allah réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm président de la république ñu ngi koy nuyu ndax lu mel ni mënula xew ci réew mi te ñu bokk ko seq te nuyu wuñ ko ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal mbooleem ku yeewu ci dëkk bi ak ku ku dund ci réew mi di ñaanal mbooleem parti politique yi ci Sénégal AFP PS LD manu soriwuma ci nag Prytain Fall wala moom bos partem amatul mi ngi dund ah dégg na bon moom daal parti politique yëpp syndicat yépp ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm la réew mi soxla jàmm la réew mi soxla jàmm la réew mi soxla kenn ku nekk nag suñ ca yeggee yaa moom sa carte yaay seet ku la neex nga jox ko allahumma salli ala sayyidina muhammad sànni si kàddu yu gàtt rek waxtaan bi yaa ko waroon waxtaan waxtaan nga ko ba mu jeex ñun ay kàddu cant yu nga xam ni ñu ngi koy jëmee si yow man def na si turu njaboot yëpp def ko surtout jàmm yàlla yi toog fii yëpp même chrétien yi nga xam ni wàllu si na nun ndaxte bare na nun si biir tànt bi ngir yàlla cofeel ak solidarité moo tax ñu teew sa mbay Mansour day faral di wax naan soo dee dénk fas bu ko dénk sa xarit na nga ko dénk xaritu fas kon sunu bàyyi Abdul Aziz bi muy dénk conférence bi xaritu xam-xam ak xaritu cofeel la ko dénk muy suñu bàyyi bi toog di xaj malik ñu àndal ak moom si tangu koor la nekk waaye dafa mel na naan nañu lem ndax sama mbokk murit bi dafa wax ni ñetti ñetti wax moo am wax bu nga xam ni dangay naan lem ak wax bu nga xam ni dangay mokk doom ak wax bu nga xam ni bi dangay wan safara ne na wax bi ngay naan lem mooy sunu daje tey bi alxuraan rek nga fi dégg ak xadis ak waxu mag ñu baax yi kon mën naa wax ni ñun nëpp naan nañu lem donte sax ngi nekk ci weeru koor ni nga wax léegi rek ni dog nanu waaw te dog jotagul mu ni wax bi nga xam ne bii da nga mokk dóor moo di wax wax bu nga xam ne bii doo si am bàkkaar waaye amalu la njëriñ monde bi mu ñëwee wax nanu ba sunu dënn teppeeku coupe du monde dem na ban njëriñ la amal amoon na benn combat bu amoon fii xaw ma bàll nay nan waaw wax nañu ba teppeeku waaye bari njëriñ la ñu am wax bi nga wan nit safara nag mooy wax bu nga xam ne bii jëw ak def safaan rek yàlla musal nañu si wax bi nu wax mooy wax bu nga xam ne bii dañ si naan lem waaw yàlla nag dafa wax ni yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin waaw waaw waqad alima kullu unaasi mashrabahu yàlla dafa wax ni gannaaw bi ngeen ma gëmee ba pare na seet ñi faytewoo dëgg ngeen di ànd ak ñoom dafa mel ne ku choisir ànd ak sama waa si Hajj Malik ànd ak sama maam Sëñ Tuubaa dafa mel ne yaa ngi dugg si ay boobu waaye yàlla nag ni as-saadiquun kenn du ma ko ko dul sama bopp man humu saadiquun safwatun min al muminina anahum allahu bi qawlihi min al muminina rijalun sadaqu ma ahadullah yàlla wax ni soo dee wut àndandoo na nga dem wut àndandoo bu nga xam ne bii du ma woor contrat bi dox sama digganteeg yow convention bi dox sama diggante yow convention bi dox diggante yàlla ak doomu adama charte bi dox diggante moom wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni c'est-à-dire sa servitude ontologique yàlla ne soo demee booy wut ànd liggéey bu baax a baax xam nañu jigéen ñi dugg nañu xam ñu góor dugg na waaw ruju la si boppam mooy symboliser parité xoolee rek l'islam chumuliyatul islam benn baat waaw annisaau shaqaiqu rijal bi gaa ñi laatee lancer le débat sur la parité l'islam indi na benn concept bi naan le concept de rujula la bi nga kii incarne en tant que concept en tant que terminologie la parité parce que man ni mu koy firee rujula c'est la plénitude d'une perfection humaine sexuellement indifférenciée góor dugg na mbubb la moo xam ne bii góor mën na ko sol mais mbubb la bu nga xam ne bii itam jigéen mën na ko sol ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa loolu la yàlla wax waaye daa gis ay jigéen yu nekk si biir famille ñoo taxaw taxawaayu góor ay góor yu nekk si biir famille ñoo taxaw taxawaayu jigéen kon nag ñu choisir tey tànn ànd ak sunu baay bu baax bi si xam-xamam si teeyam tey ku fi toog rek jëriñu ma waaw ñu ànd ak moom si ànd bu nga xam ne bii sama maam si xaaju Malick moo ko wax waaw sadaqta ala ma lan la si teg benn ñaan bu braaw a braaw si xaaju Malick ilaahi fajal ahlana ahla xurbatin wa ahla tibaaxi sunnatin filan fi tara sa dafa ñaan ñaan bu raaw ak raaw dafa ni yonent bi wax nga dëgg bi nga waxee ni diine islaam dana delluwaat tumuranke comme ni mu tumuranke woon si njëlbeen waaye sa si xaaji Malik daal di ñaan diine bi mu tumurankee fil bidaaya kan moo tumurankee woon ànd ak diine kan moo àndal ak yonent bi sallallahu alayhi wa seydatuna Xadija Ousmane ibnu Affan Omar ñëwagul woon ana Ali ibnu Abi Talib sa maam nag ñaan ñaan yàlla ni ko maa ngi lay ñaan su fekkoon woon benn nit ci àdduna mooy ànd ak islam si tumuranke boobu maa ngi lay ñaan mu bokk sama njaboot mais ñaan grand la ndax sama maam mi ngi ñaan yàlla ni yàlla nga yëkkati sama njaboot si martaba Aboubacar martaba Khadija martaba Ousmane ak martaba Ali ibn Abi Talib question bi nag si ñun la sa maam li mu mënoon def def na ko est-ce que ñun martaba boobu mérité nañ ko wala déet mu mel na sa maam dafa yëg ni yéen mérité ko waaye bëgg nañu àgg fa mu ni ko fii taraaxum ni yàlla maa ngi la koy ñaan maa ñaanu ma la ko sa maam lu de waaye maa ngi la koy ñaan suñu yoon waaw kon nag yal na yàlla yëngati si martaba boobu waaye sa maam dafa waxtaan gi Euh, ilaahi fajal ala himmati fajal ilaahi adiyatan li ansudu xurran xaalisan ko dewil sama addu dégg naa muy wax ni su fekkoon ni woon ni sama si xaaj ma ni baytu boobu rek la bàyyi baytu boobu doy na ko àdduna day na ko àllaaxira damay liir fan yi si affaire théologie la libération mais ma dellu siwaat si baytu boobu bi xam ni alxurriya mi ngi si bayti bi waa aqida itam mi ngi si sa maam wax ni yàlla maa ngi lay ñaan nga jël sama ite nga yóbbu ko fu kawe kawe comme tey conférence bi góor gi jël na ko yóbbu ko fu sa kawe kawe nee na ko ajal ma sama ittee waaye bu ko aj aju picc ajal ma sama ittee waaye bu ko aj aju avion ajal ma sama picc sama sama ittee ajal ma ko aju fusée mul hibatul himam waaw waaw mul himatul maraqi maraqi axlaaqi mooy wax na nag donc mulhibatul himam wala mil mulhimatul maraqi maraqi xiyam waaw himam xam nga mulhibatul himam boobu xam nga fusée dafa am benn force de propulsion moo tax muy àgg fi mu àgg safara soos nekk si suuf ñu tànk mu tànk mooy yóbbu fusée fi mu àgg sa maam nee na nag yàlla may ma safara soos mu yëkkatil ma sama himam mu yëkkateel ma sama ité ndax ité bi nu mu gën kawee rek jikko yi makaarimul axlaaq yi gën kawee noonu dafa mel na conférence tey bi muy hibatul himam la yóbbu nga suñu ité fu kawe kawe ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla natt si makaarimul axlaaq yi jikko yi laate yal na yàlla def ñu ngi nuyu ñëpp nag di nuyu le représentant du premier ministre di nuyu la délégation qui représente ici euh, le bureau de Karim Wade de nuyu le euh, cabinet du ministre Babacar Ndao di nuyu coloré yi fi nekk yëpp euh, bugguma tiim yëpp ak Ndiassa Mbengue bi nga xam ne si cabinet Pape Diop la la ñëw surtout boobu la ñëwee di leen sant di leen lu toll nii benn loxo rek mënu ko téye ñoom ñëpp indi nañu ay teraanga ñoom ñëpp dugal nañu seen loxo si barke weeru koor gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla yàggal teraanga seen loxo waaw di ñaan yàlla lu nu mën ren yàlla nu ko mën deewal di ñaan yàlla li sa maam Abdou daan wax rek yàlla bu nu bu nu jéem lu nu tëye yàlla bu leen jéem lu nu tëye yàlla bu leen jéem lu nu tëye di kontaan si teewaayu Papa teewaayu El Hadj Malick si suri teewaayu lay jara teewaayu xalifa euh, euh, ndaw ak teewaayu ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp di leen di leen gërëm di jox kàddu euh, Youssoufa Diallo bu nga xam ne bii sunu sunu waajur la waaw di le conseiller du premier ministre qui dit qu'il a message à transmettre ñu jox la kàddu bi rek déglu ko deux minutes après sëñ bi ñu ñaan ñu ñaan yéen ñi. ñu sante yàlla. ñuy nuyu itam Babacar Meng bi nga xam ni bii mooy le le maire de le maire de Yaraax nuyub lislaam muy asalaamaaleykum e nuyoo boobu nag maa ngi leen koy nuyu ci turu premier ministre maître Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xam ni moom ma yónni man mi conseiller spécial am e tudd Youssoufa Diallo e te kër gi sax ma bokk ci fii moom dama fi bokk du firi sax li ma fi bokkee mais li tax sax bi mu tëlee parce que moo bëggoon ñëwal boppam parce que dafa am un message fort bu ko président jox mu waroon ñëw indi ko mu ni ma puisque dama am ngant te yow ca nga bokk te diggante bi la ca nekk yëpp xam nga ko dox nga ci yow laa bëgg yónni nga dem yóbbul ma contribution président ci xew-xew bi mais surtout nga transmettre ma message yu président de la république muy maître Abdoulaye Wade sëñ Mansour et eh, maa ngi kontaan bi ma fi fekkee suñu wasila suñu kilifa muy sëriñ Maodo ba suñu bàyyi Abdoul Aziz Dabakh radiallahu anhu ku nekk xamoon na El Hadj na mu meloon ak El Hadj Oumar bu Ndar kon nag su ma ñëwee fii et am na message boo xam ne bu ma ko waxee nit dana ko mën a dégg sëñ Mansour premier ministre nee na président de la république moo ko wax mu jottali la kàddu yi kàddu yi mooy ñi ngi ci weeru Ramadan Ramadan. di lu rëy ci jullit ñi mu ni mbooloom jullit yi ci réew mi ak mbooleem koo xam ne mos na seq ak yow même bu sequl ak yow e mi ngi lay baal àq mais aussi mi ngi lay balu ak nee na kër gi di kër Sëriñ Seydi Jamil ci reenu réew mi ci la bokk te kenn mënul tabax réew mi te kër gi wàllam nekku ca kon nag message bi mooy président mi ngi lay tàllal loxo di ko tàllal mbooloom ji kilifa ci réew mi te di yëngatu ci wàll wu nekk président nee na e réew mi ñëpp a ko bokk dafa am nag ñoo xam ni maanaam ñiy yëngatu ci wàll politique li leen boole moo leen wuutale réew mee leen boole ci bokk fi dëkk bokk fi mbokk bokk fi alal bokk fi nekk xëy na ëllëg di fas yéene tëdd fii waaye la leen wuutale aussi mooy ay pexe ak ay xam-xam ci réew mi kon nag la leen wuutale moo leen boole waaye nag ñi taxawee taxawaay bii ngeen taxaw muy wàllu kilifa diine président nee na yéen ay jaasi ngeen waaye ay puso ngeen ay jaasi ngeen ci kaw charia ak diine lépp lu àndul ak moom da ngeen ko dog waaye aussi ay puso ngeen parce que fépp fu réew mi di tasaaroo wala nit ñi di jàmmaarloo wala ñuy jote yéen a war nekk ñi leen di boole kon nag message boobu président yónnee na la ko et di la wax nag ni réew mi booloo juboo ànd liggéey moo mën a defar réew mi leneen mënu ko defar te ci loolu nag am nañu yaakaar bu rëy ci kër Seydi kër Seydi Cheikh Hadj et particulièrement ci kër Seydi Jamil lii daal mooy message bu gàtt bi nga xam ni premier ministre maître Souleymane Ndéné Ndiaye yónnee ne woon man ko ma transmettre la ko ci turu président de la république allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaye surtout waa ñu ci nekk ñu ci yàlla ci benn dugg euh, tabarakallahu euh, xam ne baax na dégg itam baax na nit dana déglu te du dégg nit itam dana dégg te sax du déglu waaye kàddu Souleymane Ndéné yi mu transmettre jële ko ci président de la République ne ko Sidi Mouhamadul Mansour ak njaboot yi di waa xadra Sidi Jibril yëpp ak Maodo ma fa toogal magam Sidi Abdul Aziz Si muy porte parole bu famille Cheikh Hadj Malick dégg nañ ko gëm nañ ko te loolu mooy voie bi nga xam ne ci la ñu duñ ko wàcc lépp luy renforcer unité nationale duñ ci jàpp suñu njàmbur euh, ndax yàlla daf ñoo nattoo ñu jëflanteeg ñëpp daf ñu nattoo ñu ñuy jëflanteel ñëpp yemuñu ci xel ba suñu waxee yow ba dem suñu watul sax ñu brouillé sa xel wala sa xalaat ci lañ ca waroon na mu waroon selle <coughs> waaye loolu fekk <coughs> ngay ñaan <coughs> ñu jox yàlla sa bopp du la dal ci mbaaxu yàlla jàmm jooju mu woote bëgg ñaan ci daañ ci ñaan daañ ci dox Sidi Mouhamadul Mansour itam yàlla moo ko jox cër bi ci biir kër maam léegi laa ko naan surtout Cheikh Al Hadj Malick ki ci mag ci ñiy góor ñi jur moo di Sidi Jamil waaye ñi góor ñi jur itam ci sëtu Cheikh Al Hadj Malick yaa ci mag muy cër ci biir cër kon boo xam bu ñu xam ne cër boobu yàlla sédd na ko ko tabaarakallahu mu wax ko tàllal ko loxo. Serigne Mouhamadou Mansour jël na loxo bu ni toll teg ko ci loxo bien que pour réew mu jëm kanam li fi affaire futilité ak affaire lépp loo xam ne day indi malentendu wala muy indi polémique ñu jëm ko sori suñu kéemtalaay kàttan nañu mayante nag ku nekk di déglu sa morom. nañu mayante itam dégg li yonent bi wax wax naa ko sama njàlbeen waxtaan nee na inna li saaxibil xaqi maqaala képp koo xam ne am nga sa am nga sañ-sañ wax ko ba ju dégg ko mais ak na nga koy waxee yonent bi dafa ne man kaana minkum ya'muru bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'rufi eh, bi ma'rufin hmm. ku ciy digleeti lu baax wala ngay wax lu baax na nga ko waxee lu baax waaye eh, di wax lu baax ba pare am noo ko waxee lu ci juddoo ci fitna eh, ca dëgg-dëgg bëggooloo ko ci woon waaye xëy xëy na yàlla ko ca def su ko defee tam nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbale ko yàlla jàppale ko yàlla dimbali yàlla jàppale waa réew mi yëpp tabaarakallaahu te àddudu eh, eh, wàññiwul multi eh, xaw ma nu ñu koy wax multipartisme hmm. ak lu mel noonu wàññiwul dara dara dara ci biir réew ndax nit ñëpp mën xool benn barab waaye ci biir ñàkk xool benn barab mën nañu déggoo ci lépp loo xam ne dafay jëfe réew dafay jëme réew kanam lu gàtt rek moom suuf ma ko ma jeexal alternance bi muy soog matul 4 mois dama dem Paris doon seeti sama oftalmo Abdou Diouf dégg na ma mu sàkku ci gisee ma ba ñu jox ko sama numéro mu woo ma euh, ma dem seeti ko maa ngi ànd ak maam Ousmane bi sama rakk la maa ngi ànd ak euh, euh, rakkam Sidi Ahmed maa ngi ànd ak Pape Makhtar Kébé ñu dem fekk ngi toog ci sàngam Elisa ngi toog boobu mois rek la am ci alternance Elisa toog sama jigéen la sama xarit la si sa njarmeew moo nekkoon ambassadeur bi ngi toog ñu toog waxtaanee ci réew mi lu bare bare ak àdduna ak góor gi bi muy laajte mu ne ma ñaanal ma ñaanal son papa xajab ñu ñaan bi ñu jógee bay dem ma téye loxo soññ ma ne ko président ma ne ko président maa ngi lay xamal ne changement am na ci réew ma waaye dama fas yéene jàmm ji ma seqoon ak yow ma seq ak lay Wade jàmm ji ko ëpp mu ne ma loolu la son papa meloon mu ne ma loolu mooy yoon maa ngi la ciy encouragé ma def ay daje itam ne leen tante ñu daan moom naan nañ ñaanal Abdou Diouf nañ ñaanal Abdou Diouf eh, tabaarakallaahu raison yu ko a valable moo tey ñu naan nañ ñaanal Ablaye loolu laan 2000 laa ko doon su ko defee nag kon nit ki soo ko yëgee rek mu yëg mhm. soo ko bàyyi xel la mu bàyyi la xel li wolof naan nag magul lëndam la soo ma yëgee ma yëgal soo ma yëgul sañ naa boobu mu bon bon yëg sama ko moom nag yëg nañu c'est un vrai africain africain la sénégalais la tabaarakallah ñun ñu ko bàyyi ci 13 ans muy dem sama may dem kër ku yiw la ku baax la léeg-léeg rek dara feeñ mu ne yëguma ko te mi ngi bëgg a bari vraiment jaadu na war na nag ñi mu ñi ànd ak moom sës ci moom jàppale ko te muy dëgg la ndax léeg-léeg dara xew rek ba ci semence maa ngi dégg suba teel mu di ko métti te mi ngi bëgg a bari kon boog Souleymane itam ñu ngi koy sant mu ngi jàppale président bu baax mi ngi jàppale président ñi sori mi ngi leen di xëcc ñi foñ mi ngi leen di fekk di waxtaan nañu te itam gis nañu tànk yam ciy dox lu ñu rafetlu la gis nañu ne itam ma dikke ñang itam mi ngi koy jàppale moom itam jàppale boobu su amee ñu bari ñu ko jàppale noonu rek rek mu baax waaye su kenn ku nekk gisee sa intérêt bopp kese kese dafay jur rek euh, bontente jur réeroo moom daal li mu bëgg mag la kilifa la ñun xam ne jàmm la bëgg njariñal réew la bëgg avancement réew la bëgg loolu ñu ngi ko ko ñaanal ci bés bi loolu daal mooy tontu Serigne Mansour. jërëjëf barakallah jërëjëf jërëjëf jàll euh, suñu bàjjen. suñu bàjjen. Euh, moo agsi léegi ànd ak ay doomam yépp ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam ñu ngi nemmeeku itam teewaayu Al Ousseynou Ndiaye à la présidence sunu xarit Ismaïla Lo du tànkam lu la lu nga xam ni lii Ismaïla Lo waaw du tànkam lu la lu nga xam dafa jëm ci kër Cheikh Seyd Mouhamed Moustapha ñu ngi nemmeeku teewaayu euh, Tafa Moustapha Gueye teewaayu Gris Bordeaux ak gros sëñ ab yëpp itam euh, teew nonu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara je crois que la délégation Moustapha Jamil waaw Moustapha Gueye nee ñu wax ko Moustapha Jamil wallahi Moustapha Jamil a ngi toog Tafa Gueye di nemmeeku itam présence su sunu waajur bi toog di sëñ Mansour bu sunu maam Habib. Hmm? waaw so euh, soxna Umu Kan tam teew na bu suñu rak euh, sëñ Mansour man sëñ Mansour bu mag nan ma tuddee waaye sam am na beneen Mansour bu ma xam ne <laughs> mooy bu temps seeni bu jàllo euh, moom tam na fi mbooloo mi kon hmm. laata sëriñ bi ñaan ma hmm. hmm. ñaan dañu bëggoon rek ngeen may ñu dañuy jotal programme yi nekk sunu kanam naa ni nekk samedi le 21 daayira jami ñi ne leen di ñu seen sukaru koor dimanche le mooy doon conférence su daane mbay bu am solo <clears throat> samedi bi di ñëw la 21 à teeru bi yéen ngi fàttaliku initiative bi ñu jëloon daaw muy affaire mbënd mi xale yi nekkoon yëmbal te nekkoon si biir mbënd mi te ñu jëloon leen yóbbu leen si au camp de Mboro le camp de Sufop 500 enfants euh, mu nekkoon nag un grand succès xale yaa ngi koy réclamé donc initiative boobu daan ko reprendre euh, camp Mboro ak kan camp Case bu nga xam ne bi euh, Malick Sy bii toog moom joxoon ces facilités la expérience boobu nag te ñoom sax doomam ñaaña si ak waa Régis yi ñoo amoon idée boobu idée bi ñu met mettre en pratique mu nekk un grand succès un succès franc Euh, Malick ñu ngi lay sant di la gërëm parce que idée bi si yéen la jóge jógewul si ñun kon nag idée boobu nag comme nekkoon na un succès xale yaa ngi koy réclamé daanu ko à partir du 4 septembre mais doon bëgg organiser au terme bi le 21 le 21 août benn conférence benn table ronde sur le problème des inondations les mesures immédiates qu'il faut prendre et les perspectives à long terme pour éradiquer le problème des inondations On va appeler des spécialistes le 21 à partir de 10h au Terroubi pour qu'ensemble nous réfléchissions, dans nous projeter le film d'une défendant, mais en même temps dans une mobilisation de ressources, une collecte de fonds pour pouvoir faire face aux dépenses euh, de l'édition de 2010. alhamdulilah waa Medina Boub itam sunu sunu xarit moom joué na un très grand rôle amul dara lu nga xam ni ñi ngi koy yëkkati que Seydi Djamil c'est que Seydi Hadj Malick d'une manière générale mettre à notre disposition euh, ces voitures ces euh, bus et cetera yan na yàlla yàggal teraanga si lu mu ren yàlla mën déwoon lu ko ëpp ak waa Pape Sané Mbaye aussi waa Pape Sané Mbaye le 11 dinaa yebal gaa ñi ñu ñëw seet incha allah ñu ngi nuyu Babacar Babacar Meng le maire de Yaraax moom tam tan xam lu dara lu nga xam ni si kër gi la jëm aouzu billahi min alcheytani irajim nangu leen ñaan bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddalin amin allahumma ya hayyu ya man nusiba lahu alhayat ولا منصب لغيره مما نسب على نفسه تعازم سبحانك أسماءك وتنزهت عن المسميات تعازمت ذاتك عن المثال والشريك والنظير والصحابة والوزير فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية فانبسطت الحياة من حياتك فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميعا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إن الله بسرى لآقيذ هذا الورد سالكيه man naa la xoor naa la ajran xayra man ahmad tijan busra li aqidi hada al wirdi saliki man naa la xoor naa la ajran xayra yéen ñëpp def leen nii la xam man naa la xoor naa la ajran ajran ajran ajran man naa la xoor naa la أجرا غير ممنون من نال نال أجرا نال أجرا نال أجرا من ناله نال أجرا غير ممنون يستندب للنيل فمن نال نال أجرا نال أجرا أجرا منالهنا لا أجرا غير شيخ أحمد تيجان منالهنا لا أجرا أجرا منالهنا لا أجرا غير قديم بليني منالهنا لا أجرا أجرا أجرا أجرا أجرا ينالون لا أجرا غير منال أجرا من ناله منال أجرا أجرا أجرا أجرا من ناله نال أجرا غير ينبدك للنيل من نال هنال أجرا أجرا أجرا أجرا أجرا أنا لكون لا أجرا غير شيخ أحمد تيجان من نال هنا لا أجرا أجرا لحجة كريما نال هنا لا أجرا غير بدبليني لخمن لا كنا لا أجرا غير مماني لولا العناية كانت إن خيرا